mais du réew moo xam ne dañuy toog rek di wax te ñiy wax man nee naa damay jaay gerte di jaay ñebbe di jaay oto waaw laaj leen ñoom Sonko ñoom lu ñuy jaay yow mën a am xaalis te amoo buro doo jaay opposition yépp kuñ ci dàq ci ministre taxawaalooy sa métier ba pare nga ni danga defarum réew buñ leen nax am réew ku koy defal da ngay am métier man commerçant la sama métier jënd jaay la te dama ko assumer ñoom dama bëgg ñoom ñi nga xam ne nee na ñoo bëgg a defar Sénégal am ay Mamadou Diop Decroix Abdou Mbaye Idrissa Seck Sonko nañu wax Sénégalais yi luy seen liggéey te man koo génnee man at mu ne dana fay ci droit bu mat cent millions danaa ko dugal ci gerte

domaine bépp président def na ci loxoom yépp nag mënuma ko lim ci wér-gi-yaram gi ci jàng bi ci bourse familiale yi lu mat quatre cent mille personnes ñi ngi am ñaar fukki junni yu ñu leen di may par at loolu nga ni du jëf yor seen làmmiñ di wax te kenn amul cim xëy beneen question bi mooy Sonko Sonko day tam nit ñi mais dama ne bu sàcc amee ci Sénégal mooy bi gën a rëy mooy ponkalu ngandumaam yàlla bi dàq sàcc dàq fen dàq tappale loolu laa wax ndax li mu yor moomu ko liggéeyu ko ci riba lay dund waaw booy dund ci riba ba pare di tam nit fan nga jëm man laajaatoon gars yi ni leen waaw ndax boo dénkee sa bitig nit muy sàcc di def ci poosam di sàcc gisoo ko ba contrôler sa bitik mu manqué nga jox beneenub sàcc muy sàcc nga contrôler ko jàpp ko est-ce que danaan la demal jàppi ba ne doog maa jàpp yooy wax càqaan la am leen fulaak fayda ñii di wër di wax seen bopp leen tax a jóg ku ci ne duggoon nga ci nguur Abdou Mbaye cassette amna buma bu député ci motion biñ ko opposition bi wax li Macky Sall def lolou la bu démé Macky Sall mi candidat pour Daniel. sénégalais mat nañu de mes députés. député amul mes démé parrainage amul nan réew mi kenn du ko taal suñ bakkan lañ ci teg réewum Sénégal xam ngeen ne jàmm fi am de heure bii ci guddi ma toog fii mbooloo mi wal ma ab garde corps nekku fi ba nekku fi ñu ni réew mi day tàkk nit ñi àndu ñoo Macky Sall loolu ay kàcc la dara du ci dëgg kàcc nag ku ko wax tubaab boo waxee ne boo fene boo dee ndayami danaan la papa tu mens mama tu mens Donc l'opposition sénégalaise est une opposition composée de menteurs qui mentent nuit et jour et qui n'ont qu'une vocation de menteurs et de spéculateurs. nit la ñu ñu jubul ñoo xam ne bopp leen ñor Sénégal du doxé nonu danoo lank ñom bu leen jaralé ñom fenkat yi ni dañuy tal réew mi mu jaral ñu jël suñu défense ni leen du ngén tal réew foofu la débat bi ne